soo gisee ñun suñ politique néew doole lool fii si Gambie xam nga jigéen boo demee ba am jëkkër pour sëy pour nga war a bàyyi sa néegi sëy di dem politique dafa jafe lool il faut am jëkkër bi nga xam ne dina mun a understand su kooku understand rek loolu du am problème yow mun ngaa dem fu nekk ku mel ni man man suma jëkkër dafa am understand bi boo xam ne nii wax dëgg yàlla terewul ma dem xam ku nekk xam ne ne politique dangaa dem dangaa génn dangaa dox ak time bu nekk yow léegi su nekkee ne am nga jëkkër boo xam ne nii may ne la lool boobu moo nekk suñ number wan problème